مقام بهم مقام بدون مثل نعم وتديكم مرة مرة ديكلا bu jege Bagdaad moom la ñu askaane askanee Nu'maan bul Munzir axbara nett axbara xibaar na alxaaris ibnu Hammaam xaaris doomu Hammaam qaala wax na ne raaytu gis naa عجيب الزمان سكيم تاني جمنا عجيب جمع أعجوبة ما يتعجب منه لن يمشم أنت قدمه <clears throat> جيتو خصمان نياري قلوكت إلى قادي معرة يمشي أتكتو معربة nee na لو يمي بوكو yéeme تاني جمنا mooy ñaari xulookat daal laa mos a gis ñu dem ci attekat boobu ci dëkk bu ñu wax Maarra. Maarratu hmm. Noomaan dañ koy askane Noomaan bu Munsir. Hmm. dañ koy wax Maarratu Noomaan Maarra ab Noomaan ma. Hmm. ñaari ci Maarra ab Noomaan. ahaduma kenn ci ñoom ñaar. ci moom. etiye way teey mooy mënutu lekk mënutu jotee. maanaam mënu sëy. dañoo wax ne ñaari way teey mhm. mooy lekk ak sëy mhm. ñu ne déedéet nelaw ak sëy lañ ci namu mhm. ñu ne geres ak ndaw yàlla xam doone daal wute nañ ci tafsiru al ashabaani mënatu màggat na daal kenn ki wala axaru keneen ki kaanoo dafa mel ni moom xadibul baani bantab garabu baan la kenn ki dafa mel ni banqaasab garabu baan ndax ne gi mu nekk ndaw bànqaas gu wér bu baax ndax mu day tooy ñaari xulookat yi kenn ki màggal la kenn ki xale fa xaaral mu wax mag ma na ay yedda yàlla na dëgëral allahu yàlla alqaadi attikat ba kama ay yedda comme nu mu dëgëralee moom almutaqaadi kay attelu mm-hmm. kay attelu mooy ku ñëw pour ñu attelu ko ndax kat kay attelu yàlla dëgëral na ko ci attekat bi mm-hmm. bu attekat amutoon moom boo xamee jafe-jafe doo fu muy jaar mm-hmm. waaye ba yàlla sampee attekat moom mu mën a wéeru ci attekat bi kon moom attekat bi ndëgër la mu ne nu ñu yàlla dimbalee ba mën a ñëw ci yow pour wut ndëgër yàlla na ko yàlla dëgëralee yow tamit <clears throat> mu commencé kalaame nag mag bi mooy commencé kalaame waaye waaye waxu dara dañuy dañuy yelwaan rek. Mhm. moom Abu Zayd ak doomam ji façon yelwaan si lañ nekk nii. Mhm. moom noonu dara ko yelwaane. Mhm. xam nga dafa yelwaan xam nga day dóor marto yaakaar naa dóor marto la gën a niru dégg nga. fii dafa mel ni ku amoon jàmbu jigéen fekk pusa lay wax pusa li muy wax yëpp pusa lay wax. ñëw si àttekat bi di ko tawatal. puso boo xam ne du dëgg sax mm-hmm. bu ko woon na ko damaa ñàkk rek mm-hmm. mu ne innoo naka li am baam Abu Zeyr mooy wax mm-hmm. kaana nekkoon na lii ñeena moom loo katun ab puso buñ moom moom loo ko mooy luñ moom dafay firi jaam jigéen waaye luñ moom la ci namu puso la ci namu rachiqatu xaddi bi aji jub taxawaay maanaam puso bi taxawaay bi dafa jub xam nga puso lu jub la ah. asiiratul xaddi bi aji rattax ak lex mhm. puso bi lex bi dafa gudd loolu mooy dafa gudd mhm. te rattax loolu mooy asiila mooy lex bu gudd la am te rattax mhm. <laughs> maanaam am naa puso boo xam ni taxawaay bi dafa jub mu gudd rek rattax saburun mu ñaakoon laal kaddi ci kaw coona ndax puso moom faaliwu dara lu métti métti day muñ te xub bu dafay ñàkk mooy day gaaw axyaanan léegi-léegi kën nax di mel ni fas wuy buur puso bi léegi-léegi da ngay muy gaaw mel ni fas mhm. ndax boo koy ñaw day gaaw mhm. watar xudu muy nelaw mhm. atwaaran ay ay waxtu filmen di ci laytaay léeg-léeg puso bi nag dafay tëdd tekk ci laytaayam xam nga puso boo si ñëwee ba pare da koy teg teg googu la nelaw si laytaayam wa tajidu dana yëg fi tamuusa ci weeru tamuus benn la ci weeru ruumi yi weer tàng lay doon mm-hmm. masal bardi laal ak sedd mm-hmm. maanaam weeru tëmmus bu jotee mm-hmm. xam nga dafay tàng nit ñi ñaareel duñ ci nekk di ñëw ak yi rek yooyu parce que nuñ gën a féexee rek loolu moo leen gën a mu ne jamono boobu moom puso bi duñ koy tàcc ci barab bu sedd muy noppalu lu liggéey dara ndax weer woowu duñ ciy ñëw lu bëri <clears throat> weeru tàngoor la zaatu àqrin kay borom ak takk way naa leen ak buum xam nga dañuy jël buum gi takk ko ci puso bi moo tax mu ne puso puso boobu dafa am luñ cee takk ak buum maanaam dafa am buum guñ ci takk waxat din ak cat wasinaanen ak ñaw ka dafa am am ñaw ka su xool da yaakaar ne jaam wax fekk ak ñaw ak ñaareel bi banaan bi bi banaanin ci baaraam xam nga da ngay gaa yi ñëw ñëw rab bu oyof Mm-hmm. tegaat si beneen rab bu bu dëgër mm. moom mooy kaf soo koy boo gisee da nga tënk la bëgg a wax mm-hmm. dafa am tënk ak ay baaraam déedéet dafa wane ne ci baaraam lañ koy rawee raw ak ñaareel moom puso boobu mm-hmm. baaraam yi ci kafin hmm? ak raw ak ñaareel banaan ci baaraam wala xam-xam bu bëri bu ànd saay-saay borom musiba lay def Mm-hmm. wa fam ak gémmiñ mm-hmm. bila asnaanin ci lu bëñ mm-hmm. dafa am gémmiñ waaye amul bëñ xam nga puso am na bën bën <laughs> waaye amul bëñ ñoo ba ci àttikat di wax fekkee da koy fooye rek taldaxu day mat bi ci làmmeñ nat naadin bi aji fet feti fet feti muy bu bëri yëngatu bu la màttee eh, dafay saf lool comme looy fet-feti luy mm-hmm. yëngatu sa biir mm-hmm. watar furu day diri mm-hmm. fii day lin ci mbicc mbicc mooy cal yére fat faadin bi aji yaatu parce que puso bi xam nga ne yére yu gudd man na cee dugg yére yi ne faree gannaaw moom muy ñëw dégg nga sol yére yu yaatu maanaam dafay dugg ci yére yu yaatoo yaatu yaatu la bëgg wax moom puso hmm? day dugg ci yére yu yaatu rek la wax dégg am day ñëw rek la bëgg wax wutuj laa danañ ko feeñal mhm. fii sawaadin ci lu ñuul bu bayaadin ak ci lu weex mhm. maanaam léeg-léeg mu ñëw lu ñuul léeg-léeg mu ñëw lu weex wutus xaa danañ ko nàndal mhm. walakin waaye nag min xeyri xiyaadin ci lu ay mbalk jëmu xawd léeg-léeg ñu nàndal ko kat waaye nag kenn du ko nàndal ci mbalk dafay net dafa bëgg wax li gars yi di wax léegi-léegi ñëwkat yi dañuy ñëw ba ci këram ñu jël bi. Mm-hmm. teg ko seen ñaq yi nii pour mu gën a ratax pour mu gën a mën a kii. Mm-hmm. ba pare seen ñëw loolu ñu koy teg seen ñëw eh, seen seen seen eh, ñaq wi. Mm-hmm. loolu mooy nàndal. moo tax mu ne danañ ko nàndal waaye duñ ko nàndalee <coughs> mbalk. <coughs> mooy li teg puso bi seen ñaq wi rek pour mu gën a gaaw. naasixatun aji ñëwaakoon la. nasaaxa mooy ñaw rek. wala boo nga firee ko naasihatun aji laay biir la mhm. xudaatun aji waraakoon la mhm. dégg nga mhm. wala boog naasihatun aji ñawaakoon la xudaatun aji duggaakoon la puso bi dafay ñëw day dugg day dugg ci biir yi di ñëw dégg nga wala nga ne dafay laay biir waaye mën naa war de ndax mën na laa jam day firi ñaar yëpp xubaatun nëbbaakoon la moom puso bi tulaatun fenkaakoon la mhm. maanaam léeg-léeg mu nëbb léeg-léeg mu feeñ mhm. boo koy ñëwi noonu lay mel léeg-léeg mu nëbb ci yére bi léeg mu génn mhm. matbuatun kuñ bind la alal man faate si njëriñ puso daal moom ah. moom moom yàllaa ko bindee mu am njëriñ njëriñ rek ndax lu xar mu ñëw bu mitwaatun toppaakoon la fi diiqi ci jamono xat-xat wa saxaate ak jamono yaatu yaatu moom nag lu koy gis noonu hmm. bu xatee boo ko liggéeyloo mu topp la hmm. bu xotteeku hmm. boo ko liggéey mu topp la maanaam moom xotteeku gu xat ak gu yaatu la yemale isaa boo daggee mu jokk ba ma taa fasal taata saa ko faccee la in mu facc soo daggee mu jokk maanaam puso bu xottee ko mu ñëw waaye nag soo ko taajee mu taaju soo ko beree mu beru de waaw boo ko ñëwee mu ñëw boo ko taajee fële mu taaju fële mhm. xam nga bu dutoon loolu digg bi mën na laa jaaxal koo xam ne boo ko daggee mu jóg te boo ko bàyyee <laughs> mu bala luy loolu waaye mu bëgg wax mooy booy boo xate boo xaree mu ñëw mhm. waaye boo ko taajee mu taaju fële <coughs> wa taala maa ko yàgg na laa liggéeyal mm. fa jëmmalal mu rafetal mhm. mu ne ko poso boobu yow mii sax yàgg na laa liggéeyal liggéey bu rafet <laughs> waru ba maa jënat amaana sax mu tooñ mm. alayka ci yow fa aalamat mu métital mhm. mën naa bis mën naa ñëw mu tooñ la de métital ndax ndax moom day day jamaat mën naa mos na laa jëm sax ba métti mhm. <laughs> dégg nga bu mhm. defee pousse wér lay wax umal mala tam bodarndiku dégg nga bodarndiku mm, mooy luy yëngatu rek dégg euh, maanaam mos na laa jëm amaana mu jëm la jëm gu métti mhm. goo xam ne gu safa saf la loolu la ma ci wal malmalat malmalat mooy ku yëngatu ci lalam ndax métti bi nekk ci moom mhm. dégg nga mhm. waaye moom borom salaam ni ko firee mooy mu lakk la rek parce ku la lakk daanaka mooy ki lay yëngal rek fooy na haasal fataa waxambaane bii nag fekk doomam rek la mm-hmm. istaqdama nii haa liggéey loo na mu ko maa mm-hmm. daf ma ko abu pour liggéey mm-hmm. li xaradin ngir jubluwaay fa xadamtuhu ma liggéey loo ko iyaaha pusa boobu waxambaane bii ngay gis nag Muhammad indi ko si sa place bii daf ma abu pusa boobu ma abal ko bilaa ama din ci dul benn wëttee maanaam ci dul benn fay daf ma abu rek ma abal ko ko te joxuma ko laajuma ko dara ala an yejtaniya ci kaw mu witti mhm. nafa njëriñam mhm. wala yu kallifa bu mu ko togg mhm. illaa wusaa lu may kàttanam la ko sant rek mooy na ci jëriñu te bu mu ko teg lu mu mënul boo déggee boo gisee yaakaar ne jaam wax fa awla ja mu dugal fiihaa ci pousse bi mataamu bagaasam te mooy yéreem boo xoolee da yaakaar ne dafa joteeg jàmm la wax waa taala mu yàggal biihaa ci pousse boobu istimtaaxoo ak bànneexoo maanaam téye na ko lu yàgg daal. Mhm. di ci jëriñoo. Mhm. dégg nga. su ma aadaa topp mu delloo ko ilayee jëm ci man waxat afdaaha te fekk fëlal na ko. Mhm. su ko defee nag ci la ma delloo puso bi. fekk xar na ko. waaw bi dafa xëtt léegi. xam nga xëtt. wa basala mu génne ana ci moom xiimatan xayma boo xam ne mm. laa ar daa mun mu koo gërëm mm. a ah, lam ma jox nag moom d'accord moom parce que loolu moom d'accord ko ci wàllu puso bi mm. waaw dégg <coughs> xale bi àbbu na ko xëtt na ko lam ko jox d'accord ko fayagut ko na ko fay puso boobu la waaye nag waxut mu leer fa qaala moo alxadasu xale ba alxadasu moo di ndaw xale ba ne ama cheikh waaye mag mi fa asdaqu moo gën a dëggal minal xataa ci pëtam piccam përintaan piccam përintaan na picc dama wax ne buy naaw danaan xataa xataa xam nga kon wax na dëgg moom noonu tudd dëggal na ci turam ci wax gi mu wax xataa mu ngi moom yuuxoo mu ci xibaar boppam ñu di ko joxe misaal ci dëggu Mm-hmm. waa man ifdaaw waaye xëtt ak puso gi mm-hmm. fa farata rëcc na an xata ci njuumte maanaam tayuma ko mm-hmm. waxad raxantu te tayle naa ko an archima aw xantu ci diyaab la ma yàq mamlukan ab tusngel <laughs> moom it daa mel ne kuy wax jaam fekk ab tusngel lay mu ne waaye bu ma ko yàqee jox naa ko ab tusngel lii ñeel ma mm-hmm. mu te naa si ba tarafay bu yemoo ñaari cet parce que ñoom seen tusngel bu njëkk ñaari cet yëpp dañu la yemoo mm-hmm. mun tasiban buy aji askanoo elal xëy ni ci giir xëy ni fekk mm-hmm. tëgg rek la ci nam elal xëy ni ci tëgg parce que tusngel yi tëgg tëgg ko doon defar waaye jox naa ko tusngel boo xam ne ñaari cet yi dañoo yemoo a tëgg ko defar naq yéen ba aji set mais dara ni ci tilim tusngel boobu tilimut wa cheyn ak ayib عمودين أيب يقارن ذي لنكلوب محله بربم سواد العين يولك بت دين تسنجل بوب دال بوكو تسنجلو منيول سبت يفشي دفاي فينال الإحسان رفتل وينشي وميصص الاستحسان سكو رفتل أنا آه، دينغ nit ñi dañ koy bëgg jëfandikoo ngir wut taar am na yoo xam dañ koy bëgg a tusngaloo ngir wut taar te boo ko tusngaloo mu feeñal sa taar mm-hmm. wayux si day dundal al insaana mm-hmm. nagu bët mm-hmm. yow na ma nga yaakaar doomu aadama waaye way taxaamaa day moytu al insaana làmmañ moom moom buy dox ñam bët bi lay dundal waaye làmmañ moom waxu ci dara su la ci nag mu tusngal bët laa mag affaire mais amutal bët ah, làmm <clears throat> al insaanu mooy nagu bët am lay gis ca bët ba mm-hmm. in suwida buñ ko sàkk buñ ko sàkkoo ñuulal mm-hmm. in suwida buñ sàkkoo mu ñuulal mm. jaada mu tabe mm-hmm. boo bëggee mu ñuulal mm. mu ñuulal kukk way daal suwida buñ ko sàkkoo yóbbal waxa ba mu may zaada yóbbal mm. boo bëggee mu jox la yóbbal mu may la ko aw wasama waaw aw wasama wala mu màndargaal mm-hmm. ajaara mu rafetal mm-hmm. bu defee màndarga dafay rafet lool mm-hmm. maanaam bu la tus mu rafet wila zuwida buñ ko sàkkoo yóbbul waxa ba mu may azada yóbbal soo bëggee mu may la yóbbul mu may la ko ba ma tas saa yuñ ko sàkkoo dolli loo zaada mu dolli boo ko dolli sax mu dolli du nay jàmm mel noonu laa ko fekk tus ngeen la bëgg wax laa yastaqiru du sax bi max nan ci benn barab tus boobu nag li gën a yéeme ci moom mooy mënul sax benn barab mhm. Hmm? Mhm. léeg-léeg mu ngi ci poose mhm. léeg-léeg mu ngi ci saagee léeg-léeg mu ngi ci néegee léeg-léeg kuy tukki yóbbaale ko léeg-léeg nga bokk ci kër moom la yàlla xam doona la maa yen neenu lu muy takkee illaa mas naa lu may ñaar buy takk moom ñaari li ëpp ñaar lay takk parce que ñaari bët lay tus nga waaye benn bët neenu lu mu ko tus de yës xuu day tabe bi mawjuud yi ci lam am mm-hmm. waaye wees mu day yëkkatiku nag mm-hmm. indi juud ci jamono tabeem mm-hmm. lam yee boo bëggee mu jox ci ba mu doy sëkk waaye nag balaa mu laa jox day yëkkatiku parce que tusngal balaa moo tusngal rek foo mu yëkkatiku ba ci bët ya wayen xaadu lay omatu maa xaridat yi ànd ak aji lënkoom way lam takkun di la nekkut min tiinati ci banam maanaam ci cosaanam la muy ak nag moom. que mm. muy lënkaloog. Mm. foo ko fekk ñoom ñaar ñuy ànd di bokkuñ ci sax. Mm. parce que pot bi ak tusngel bi bokkuñ fi ñu jugee waaye foo leen fekk ñu ànd. <laughs> Eh, borom xam-xam bu bëgg wax lu ko bi ziinati yi ci taaram. bu illa wittement dina yaakaaruñ fii liinati yi ci nooyam. mu ne ah yaakaaroo mu nooy nag nooy de. waaye nag mm, ab taar boo xam ni bu rafet la boo xam ne dañ ci bànneexu man ngaa bànneexu ci taaram bi daal di la nooyut mën naa jafe waaye bu la neexee nga bànneexu ci taaram mhm. maanaam tusngeer bi même bu nooyut it mën na laa rafetaral mhm. <clears throat> fa qaala wax la huma ñeen leeral mhm. wa illaa budul loolu fa biinaa facc leen attikat <laughs> bi boo ko jàmbaar Mhm. waaye leeral leen ngeen jógee fii loolu la wax mhm. fab tadara mu gaawal wala mu xale bi wax xaala mu wax ba ñu waxee loolu rek xale bi moo njëkk a ñëw mhm. way way yéeme way nag way ñaan la dañoo am maanaam uslubu ñaan moom dañ ko mën uslubu dóor mars xale bi ne aarani ibratan li arfuwa atmaaran afahal bila wa sawadaha aarani abal na ma ibratan pusa xam nga léegi leeral na mhm. li arfuwa ngir ma daax mhm. maanaam ma ñëw atmaaran ay sagar yu ràpp mhm. afaa ràppal na ko albilaa ndëggu wa sawadaha te ñuulal ko <coughs> mu ne dafa amul ay pusa pour ma ñaw yére yoo xam ne nii yàgg cee dox moo dem ba ràppal ko ñuulal ko nii dégg dafa amul pusa pour ma ñëw loolu fan xaraman mu xëtt maanaam mu damm fii yedd yi sama loxo laa xata in ci njumte min nii bu tukkee ci man la maa gisabtu bu ma xëccee meq wa daha buumam puso boobu buum ga ma ci def nag moom ama koo xëcc puso bi daal di xëtt waaye nag tayuma ko njumte la falam yara te gisul a cheikhu mag mi ani saami xani mu jéggal ma bi archiha ci déyam isra ba mu gisee te awuduha ak dëngam mhm. ak ak lunkam mooy ak dëngam mhm. mu ne mag mii de li nga koy gisee lu muy mage mage jox naa ko déye kat mhm. maanaam nanguwul ma fay ko dara xam lan la nga ci yàq man ngaa fay lu toll nii lañ nga ci yàq loolu mooy dee nanguwul ma fay ko lu toll ni la ma yàq ci pusu ba te bàyyi ko pusu ba ndax mm, ba pusu ba dënge mu gisee ne pusu bi dëng na nanguwul ma jox ko la ma ci yàq te mu jël pusam ndax nay rek mu ne mag mi daal nangul ma muñal dara ba ci dee ab pusa ba sax ba li fi nekk xaala woon xaati andil ibratan pusa tumaasila bu tolloog moom mhm. baana antu jëw wi daxaa gannaaw boo ko rafetalee mhm. aw xiimatan wala nga indi xaymaa pusa ba mhm. dégg mm, maanaam mu ne ma Mm-hmm. andil beneen puso bu mel ni moom mm-hmm. mooy te mooy moom puso bi nga yàq ni mm-hmm. moom ngay defaraat ba melaat ni mu meloon wala nga fay ma xaymaam ci wàllu xaalis loolu la mu mag mi daal dama ne ko léegi li ma ci yàq bàyyi moom fay la fay ci xaalis xam ne bu doon puso bi juróomi dërëm la li ma ci yàq tax na léegi ñetti lay jar ma fay la ñaar dërëm ku ñaar laa ci yàq mag mi ne déedéet waxuma loolu loolu du ko nangu de foo nga defaraat puso bi ba mu baax wala nga fay ma njëgu puso bi rek mhm. xam nga léegi koo xam ni puso sax mënoo ko baale ñàkk nga waaye koo xam ni njëgu puso sax mënoo ko fay mhm. kooku ñàkk na te mhm. bëgg woon buur bi na ko ñun ñu ñàkk la xamuñ dara rek mooy waxtaax gàllankoor na ah, xale bi may wax mii nii sama tusngal rax nan di tayle la day fa moom mu ne sama tusngal bii moom moom moo ma ko gàllankoor ndax dama koo tayle mënuma see jot wanaa yi que doy na la nag bihaa ci loolu mhm. subbatan gàcce goo xam ne taso wadaaxa yóbbul na ko mhm. loolu nag xam nga ne doon a gàcce ak mhm. pousa rek ma yàq ko tax mu jël sama tusngal bi nii mënul maa sax baal loolu doon na gàcce wanaa yi que doy na la dégg falaay nu bët bi maraha aji xasanu la maraha mooy loo xam ne dafa weex tal sukkandikoo wuñ ko kii kon tus ngelaluñ ko. Mhm. defuñ ci benn tus ngel. Mhm. muy xasan. waaw damay marxa. mu ne falaa ni sama bët bii. Mhm. marxa ak i xasan la. weex tàll li nii ngir tayleeb. tayle gi ma ko taylee sama tus ngel moo tax sama mu ngi nii di xasan. sama loxo. taqsur dana gàtt. xen an tafukka ci mu xoppi ci mu xob bi maanaam mu jël. mbir wa bant tus bi. te man kàttan gu ma mën a fayee pusam ba jël sama tus kon nag fas buur na nga loow mm-hmm. loow loow jàngoon nañ ko mooy mm-hmm. xoolal mm-hmm. bi da sharxi ci bi la leeral xawra maskanati xóot ak sama ñakk léegi nag lii nag lii ma la wax nag yow atti kër boor nga see xam ne man xawma dara kon <laughs> xam nga muy muy gën a leeral moo naa xaar rek ñu dégg si loolu waaye moom leeral na loolu parce que loolu la bëggoon ñu dégg hmm? war si na nga yërëm mhm. li ma ñeen koo xam ne mu yokkul nekkutoon temps daal di baaxoo ñàkk mhm. waaye na yërëm na koo xam ni baaxootu ñàkk mhm. kon moom leeral ne dafa abal mag mi mag mi da ko abal puso mu yàq ko mun ne ko ma fayal la ma ci yàq mag mi bañ na ko dee njëgu puso bi rek wala nga defaraat puso bi mu jox ko tus ngelam mag mi téye tus ngelam muy tayle na ko fekk fayil ko puso bi du ko jox tus ngel topp ko ci leen loolu mooy seen problème fa aqbala mu jublu alqaadi attekat bala cheikh ci mag ma mm-hmm. wa qaala mu ne ko ihin mm-hmm. andil mm-hmm. bi xëyri tam wiin ci lu dul naxante <clears throat> tam wii mooy nga rafetal wax ji ba mu rafet fekk ay caaxaan rek la mu ne ko yow andil li nga bëgg a wax waaye bu ko lëntal de waaw wala nga firee ko bi xëyri tam wiin ci lu dul lëntal fa qaala mag mi aqsamtu maa ngi géñ bil mash'aril xaraam yi ci jàkkaay masharul xaraam wa man ak képp koo xam ne damma tàppe na ko xayfu minan xayfu minan minan naasi kii ne ci jaamukatu yàlla yi dégg maa ngi géñ ci masharul ak képp koo xam ne ma ngi ca minan ci ñuy jaamu la wàcc ca doj wu rëy dégg nga loolu mooy xayfu minan dégg nga ab doju bu rëy bu bàttardi ko xam ne bu ndox euh, tàbbee dafay wàcc ci suuf muy xëy fu ma doj la rek dégg nga minan nag moom barab la buñ xam mhm. maanaam képp maa ngi gëñ ci képp koo xam ne ma nga minan di jaamu yàlla mhm. law saa am fat nii bu ma dimbale woon mhm. fan yi lam yara nii du gis Mm-hmm. murtahinan ma aji tayloo mm-hmm. mii lahu sungalam mm-hmm. allazi bi nga xam ne raxanaa tayla na ma ko mu ne su fekkoon ne jamono neex na ci man xam nga ne du ma jël tusngalu xale bi wallaay wala tasaddaytu du ma gaar ab taxi di sàkku badalan weccee min ibratin ci puso boo xam ne xaalaha arag na ko wala samanan du caagin njëg xam nga su fekkoon ne jamono neex na ci man du ma ñëw fii taxaw naan xale bi fay ma sama puso wala boog delloo ma puso ba defaraatal sama puso bu yàqu boobu. Mm-hmm. nga remplacer ma ko beneen bu baax wala fay xam nga ne bu jamono neexoon duma ko wax de. Mm-hmm. laakin na waaye nag xawsal xurtu bi. Mm-hmm. mbëm mi jamono yi maanaam jafe-jafe musiba yi. xawsu xala la xawsul xurtu bi xalaay mbëmm yi. xawsu mooy xala gi ñu sànni fet. mbëmm mm? mooy musiba yi. tarchuqu nii moom may jam. bi musmiyaatin ci fet yi aji buum. min haahunaa ci fii. waxu naa ak fii mhm. mu ne waaye xale yi nga xam ne ay musiba rek lay indi mhm. maanaam fett yi nga xam ne musiba rek lay indi mhm. ñu ngi may jam ay fett yoo xam ne dafay alag nit ki buum mooy da koy alag da koy rey di ma jëm ci côté bi ak côté ba mu ne waaye maanaam jafe-jafe jamono ñoo may jëm rek ba mënumaa jéggale sax puso bi xam nga lii xeetu yéen wàll wa xubru xaal sama baatinu mbir xubru mooy baatin ka xubru xaalit yi comme baatinu mbiram rek man a xale bi ñooyam rek ñu ñaar ñoo xamuñ dara mhm. xam nga mu ngi koy ñaanle mhm. duran ci lor wa buusan ak ci ñàkk mhm. wa xurbatan ak ci tumurank wa danan ak ci soŋoŋ mooy sonn maa xale bi ñooyam rek ñoo ñooyam lor ñooyam ñàkk ñooyam tumurank ñooyam coono xanaa dara mandu na ak dafru bari naa suñu diggante ñun ñaar moom suñu diggante dafa yemoo ci jamono daf ñoo yemale Mhm. fa ana man naziru maay nendam mhm. fi shaqaay ci texaat yi woo moom ana man maay xale bi ci ñàkk xale bee man mhm. laa huwa déet moom yastiicu muy attan fakka mir dihi jël bopp tus ngëlam la maa ba mu xëyee murtaxanan di duñ tay la woo fii dayee sama ñaari loxo mu ne gis nga tus ngëlam bi ba ma ko jële moom mënu koo sax mënul sax delloo njëgu puso bi pour jëlaat tus ngëlam waaye wala majaal yi déet sama wëndeelu waaye fii nekk na ci ittisaawoon yaatu li la am fii ñeel njéggal mhm. xii na jinaa jamono ba mu tooñee li diqi yi di ngir xat ak sama loxo mhm. mu ne waaye man gis nga ma xaw ma fenn fu mu mën a jaar ba mhm. jéggal ko ba mu jëlee sama puso bi ndax damaa ñàkk sama loxo dafa xar maa damaa ñàkk moo tax mënuma koo jéggal kon xam nga ne maa xale bi ñoo yegg fahaas yi lii nag xisat yi mooy sama xisa wa qisatu mooy istuwaaru xale bi hmm. lii mooy sama njàngat mooy njàngatu xale bi hmm. kon nag fandur xoolal ee eh, naa jëm su ñun bët ab yërmande hmm. wa bay na naa atteel suñu diggante wala naa nga may ñu nag ñu bët ab yërmande te nga diggante nga seetloo ñu mosal wala naa mooy loo ñu jox xam nga ñaan ne <laughs> fala waa ba mu mokkalee alqaadi attikat bi xasasahuma seen ak njàngat maanaam mm-hmm. lañ nettali wa tabayyana mu bérlu xasaasatuhuma seen ak ñàkk mm-hmm. mu wóor ko ne ko ñi ko ñu ñàkk lañ mm-hmm. wa su wa taxassusahuma ak seen ak ngëneel li xam lañ koo jagoo ci ngëneel mën a way fasa neex la me mooy taxasus lañ jagoo abrasa ci la génne fekk attikat bi ku naye nay la buy joxe dara rek di bëgg a dee xaalis rek la bañ a génn ñoom ñu ñëw ci moom mm-hmm. abrata ci la génn moom àttekat bi la mm-hmm. lahumaa ñeel la ñoom ñaar dinaaran ab dinaar mm-hmm. min taxti musallaaw ci ron julleekaayam àttekat bi moom leen déggee ba pare mu génn benn dinaar ci ron julleekaay bi wa qaala mu wax lahumaa ñeel la ñoom ñaar ne iqtaa dagg leen bii ci loolu alxisaamu xuloo waf silaahu teqale leen xuloo bi léegi nag jël leen dinaar bi te ngeen ba xuloo bi baatekat bi waxee loolu fa talaqafoo mu këf ko mm-hmm. a cheikhu mag mu duna xadas waris xale ba mm-hmm. wastaxlasoo mu jagoo dinaar ba mm-hmm. alaa waji jiddi ci anam dëgg nag lal abbas waaye waxuma ay fo attekat dafa génne dinaar bi rek mag mi gaaw jël ko dugal ci poosam naa dinaar bi kay sama dinaar man kese la ñu ne ko luy lay wa qaala mu wàlil xadasi ñeel mag mi wax xale ne ko nis foo genn wàll dinaar ba lii ñeel na ma bi sax mi ma barat yi ci cër ak sama mbaax mhm. baax gi ma baaxoon baa walla puso ba <laughs> mooy gën mooy dinaar gi wa sax mu ko nag sa cër ba mhm. lii ñeel na ma xan archi ibrat yi ci dee ak sama puso ba nga yàq yow la nga waroon a am mhm. man moo koy far jël muy nga fayee ma ko sama puso ba la nga yàq sama puso ba léegi gën wàll dinaar bi moom nga ma koy faye xam nga dinaar bi ñoo ko waroon seddoo man sama cër moom mooy li ma la dimbale ba nga am sa pusa mm, jox la pusa bi abal la ko mm-hmm. ba tey attekat bi jox ñi dinaar bi ñu ñaar ñoo ko bokkoon genn wàll gi maa ko moom geneen genn gi nga moomoon nag gi nga moom yow moom nga may fayee la nga yàqoon sama pusa ba mm-hmm. wara su nekkuma nag amiru di jéng anil xaq wala dëgg de mu ne man nag jéngu dëgg la la àtte mm-hmm. <laughs> te maanaam buur bi attekat bi dinaar ba mu joxe ma ngi ciy bëgg a dee mag mi jël na ko xamul nu muy def mag mi xamul nu muy def ndaw li faqum jugal mag mi ne ko faqum jugal waxus jël al miira sa tusngel léegi fay nga ma faara mu gaar al xadasa ndaw la li ma xadasa ngir la xew ictiyaabun njàqare dafa xale bi jàq lool tiit ngir lim gis wag faxara Mm-hmm. mu rankaloo ala sama yi ci asamaanam saxaabu niir maanaam mm-hmm. karam nga ñuul kukk lëndëm mm-hmm. moom moom xale ba hmm? dégg waja ma wedam na lahu ngir loolu alqaadi attekat bi attekat bi xamatul lu muy wax mu noppi rek ngir jàq waxa yeeja jéqi na asafoo njàqaleem ala dinaar yi ca dinaar almaadi ba ji passé su ko defee nag <coughs> li xew gën na ko tiitloo ndax moom joxe na benn dinaar ba pare mm-hmm. te am na lu des ba léegi mm-hmm. ilaa and na lu mooy ne moom mm-hmm. maanaam jox dinaar gi mu joxe woon yokk na rawatina nag léegi liñ ko ci tegaraat nii ab xuloo bi xuloo bi gannaaw dinaar ilaa moom jabara jàng na baalal fataa xelam waxambaane ba wa bal baaloo ak jax jaxalam ak njàqareem su ko defee nag جن قل وحمانة ما بالو لا في قل أك جخ جخلم أك جخرم بدريه ما تنتهي درم يو خمنا را داخا ماي بها تي موم لو نيال خالب داخا ما جخلكو ماي غو نيو مو غا دافاي مو جيل اي درم رك جخ خالب وقال مو له ما نيال لا نيوم نيال نارين اتني با تيل لي نيار المعاملات جفلانت يي نيار موم بولن جفلانت ودرا جن لين al muqaasamaat ay xuloo mhm. bu leen di xuloo yéen ñaar mhm. wala taxduraan yi bu leen ma teewalati sax mhm. fil muhakamaati ci atte yi bu leen fi ñëwati ngir at wut ku leen at man kii sul xaraamaat yi mbuus ak fay tooñaanga yi ma nekkul ne ku tooñ maa koy fay de yoru mu ko porfor bii fay tooñaanga yi fanaxadaa ñu buur ñoom ñaar mi ne indi jóge ca buur ba fari xina di way bëgg birif di ci mayam mm-hmm. mufsixi mufsixayni di ñaari leeral mm-hmm. bi xam di ci cantam mm-hmm. su ko defee ñoom ñaar kontaan lool ca may di ko sant nag di sant buur bi buur baa ngi bëgg dee moom wa bi nag moom bi laay wax buur bi dégg nga da jamono ba mu yoolee xajarohu xeeram wax attekat bi nag ma nga mere mere mere mere mere moo xam ne mer mu jégg doyo mhm. jamono ba mu joxee dara xam nga doj bu génnee ndox hmm? mhm. tuuti lay doon du bëri dégg nga mhm. attekat bi la mu joxe ne comme doj bu génnee ndox mu tuuti rek ba dojam bi sebee ba dojam bi yoolee ndox ba léegi maanaam ba mu joxee lu tuuti loolu ba léegi meram ma dañut walaa yem sulu nocceekuut kamaduhu njàqareem mhm. musdura shaaxa jamono ba mu sebee seb mooy mu toq mhm. jël ma du dojom ba mhm. xatte kat ba mu joxee lu tuut loolu daal ba léegi njàqare ga dañut ma nga ma nga tiit rek ba mel ni ku tàqalikoo sago xatta isa afaaqa ba mu xiqee min xasiyat yi ca xamam ga aqbala ci la jublu ci ala xasiyat yi ci ñu koy dikkal attekat bi moom moom nee na ba xaw a xàmme tuuti. Mm-hmm. mais ni ku xamoon dellu si waat. Mm-hmm. ci la ñëw ci gaayam bi nag. Mm-hmm. non waa mooy ñu ñu bàggante foofu di ko dikkal. waqaala mu ne. xar ushri ba njareef nañ. maanaam dugal nañ xis si si sama yëg. wa nabba ani xamal na ma. xadd si sama njort. annahuma ne ñoom ñaar. saaxiba daha in ñaari way jommale lañ. laa xasmaa iddaay nekkul ñaari way kalaami xuloo <laughs> nekkul ñaari way xuloo kalaami maanaam nekkul ñaari yoo xam ni eh, ab xuloo lañuy ñuy si man ni mm-hmm. ñi ñii daal daf mel dañu dañu jombale rek mm-hmm. fa fa sabiru naka yoon wa mm-hmm. ilaa sabrihima ci loow leen maanaam gëstu leen wastin baati sirrihima ak balaloo seen mbóot mu ne nan la ñuy def nag ba xool seen mbir gëstu leen ba xool seen mbóot mhm. ba xam dañuy jombaleem wax nañ dëgg mhm. fa xaaral mu wax la ñeel ko mhm. ne xiriiru zumrati yi borom xam-xamu mbooloom ne xiriir mooy al alimul fatin al mutqin borom xam-xam bu xereñe mooy al ne xiriir ki nga xam ne mooy borom xam-xam ca mbooloom ma moo ëpp xam-xam ca mbooloom ma moo ko wax wa sharaaratu jamrati yi tey ferñeenteeg xalam ki xam ne mooy ferñeente xalam dégg nga maanaam ki nga xam ne daal mooy kilifa ci mbooloo ma rek ne innoo naka li am baam lan yetim ma du mag istixraaju xab i xab ihima génnee seen mbóot illaa bihima lu mooy ci ñoom ñaar lañ denc ñoom ñaar ñoo ko mën a génne moom makru la firee xabu pexe xabu mooy li nga denc rek fa xafaahuma mu toppaloo leen ñoom ñaar mhm. aw nan am mbindaan mhm. aw mooy ay aji dimbale rek maanaam liggéeykat yóor jiamuma mu delloo leen ñoom ñaar ilayhi jëm ci moom mhm. mu wax kenn ci liggéeykatam ne ko jugal indi leen falamaa masala bañ temboo temb mooy ñu taxaw bay na yëdde yi ci kanam àttekat ba xaala ci la wax la ñeen la ñoom ñaar ne usduqaan yi dëggal leen ma sinna bi bakrikuma seen atap gëlëm gi seen at ak gëlëm wala kuma ñeel na la ñoom ñaar ñeel na leen yéen ñaar alamaanu kóolute min tabiati makri kuma ci topp seeni pexe mu ne ko wax leen ma dëgg wax leen ma seen ati gëlëm yi maanaam wax leen ma dëgg su leen waxee dëgg jox naa leen garanti ne du ma leen topp seen pexe du ma leen def dara usduqaani sadaqani sinna bakri yi misaal la benn waaye dafa jëndoon gëlëm guddi laaj borom gëlëm gi ne ko ñaata at laa am wax ko dëgg ba mu xëyee xool gëlëm gi gis ne at ji ko waaj waxoon ci guddi gi dëgg dëgg loolu la gëlëm gi am mooy sadaqani sinna bakri yi dëggalal na ma atu gëlëmam léegi nag mu nekk misaal ci képp ku la wax dëgg rek wala koo bëgg mu wax la dëgg nga ko dëggalal ma sa atu gëlëm maanaam wax ma dëgg rek wax ma dëgg su ngeen waxee dëgg du ma topp seen pexe yi fa axjama mu aliyeer alxadasu xale ba mm-hmm. ba dëgg jotee moom xale bi daa aliyeer parce que mu xàcc mm-hmm. maanaam mu dellu gannaaw dégg nga mm-hmm. waa xadama mu song nag a cheikhu mag ma wax xaala ma wax mag ma ñëw ci kanam wax parce que parce <laughs> ana man a saruuj yi maay këjug saruuj mhm. waxaasa kii wala di mooy sama doom mhm. wa shiblu doomi gaynde nag mhm. fil ci natt mislu asadi gaynde rek man de maay saruuj sama doom la doomi gaynde nag boo koy nattu moo gaynde benn lañ rek doomi gaynde gaynde rek la moo tax mu mel ni ma mel bu ma taaddat jàggati wut yeddoo loxom wala yeddi du caageen sama loxo fii iblatin ci pusa yow man ci ab bis wala fii mirwadi du caagin bopp tusngel mhm. tusngel ak pusa mosuñ koo séq sama loxo mosul jàggati ci tusngelam moom it loxo mosul jàggati sama pusa mhm. waaye na ma dëru naka jamono mhm. al musiw bi aji indi lu ñaaw al moxtali bi aji jàggati maanaam bi aji tooñ maala jeng na binaa ci ñun xataa xadaw naa bañ xëy najta di sàkku may jamono ju jeng ji jamono juy ñaawal ji juy tooñ ji moo jeng ci ñun bañ xëy di sàkku may laa bëgg wax na tëri di sàkku may laa bëgg wax de mhm. lu mu wax sàkku xëy laa wax may mhm. waaw bañ xëy di sàkku mhm. may ku ñu sàkku may ku la nat yi raaxa képp ku tabe ak tënk asbil mawrid ku aji neex naan waaye wa ku la jaadil kaffi képp ku aji farang farang farang li illiqu loxo farang li illiqu tënk aji dagg tënk la ci namu maxlul yëddi kuñ gëx loxo dégg <laughs> mu mm. jamono moo ñu yóbbee ba kuñ gis nga tabe mm-hmm. neex naan waaye mën a mayee mm-hmm. maanaam mën a yomb lool mooy neex naan waaye mm. sa tënk tabe maanaam mm. sa loxo mën a joxe mm-hmm. ñu ñaan la waaye ku dagg loxo yi nga xam loxo bi dañ ko xew ca dox ngir duñ ko bade ñëpp lañuy fexe bañ ba xam si ñoom rek <laughs> bi kulli fànn ci bépp fànn nag mu ne lañuy ñaanee mooy Mm-hmm. léeg-léeg ñu nekk sëriñ mm-hmm. léeg-léeg ñu nekk fi buur léeg-léeg ñu nekk yelwaankat mm-hmm. léeg ñu nekk waykat léeg ñu nekk borom askan wu sell léeg-léeg ñu nekk adib loolu la loolu la ñu ñaanee ba bi ak si bépp maqsadin ak si bépp jubluwaay fu ne dañ fa jublu bil jiddi mhm. dañuy ñaan ci dëgg mhm. in aj daandem jëriñ na mhm. wa illaa bu dëgg jëriñut bi daddi ci fo bu fekkee wax dëgg moo moo sës ñu wax dëgg tañ may ñu bu fekkee ay caaxaan rek ay tax ñu may ñu caaxaan tañ may ñu waaye ñun daal ñu mën a def bañ may ñu rek danañ ko def dinañ liba pour ñu bijji ak sepp rasho mooy lay toq ci wàllu ñaq maanaam may gu néew la ci nam el hadzi yi yokk ko ci cër asadi bi aji xundoom mooy bu mar wanun fida wanun wanun xida ñu xettali al umra dund bi ay ci dund an kadi ba aji xat wala bu naqari an kadi wanun wanun xida loo def wanun fida wanun fida mën naa nekk wanun fida ñu jeexloo mhm. ñu jeexal mhm. al umra dund ba mhm. bi ay siin ci dund an kërin bi aji xat dafa moo gën a kii hmm? may gu tuuti rek yokk ko suñu xam ne eh, dafa mar lool xettali dund bi ci eh, dund bi nekkee ci xat-xat yi mu nekkee wala boog ñu jeexal dund bi ci xat-xat yi naq yi naqar yi mu nekkee maanaam ñu génne ko ci daal mooy wax mm-hmm. wal mootu dee nag mm-hmm. lanaa ñeel nañu bil marsali ci foogluwaay ba mm-hmm. min baam du gannaaw ko mu ne ko xam naa ne danaa deere li may def ni yëpp tappale yëpp bu yaakaar damaa xamul ne danaa deere xam naa ko dee ak dee ak may xaar de ilim yu faaji bu bettut xal ma tey faajaa bett na fi xadini suba bu dikku tey dikk suba wala nga ne Mhm. risque yi may dugg nii xam naa ne dee xaj na ci moom. Mhm. bu ñëw tey ñëw suba waaye risque yi may dugg nii moom xam naa ne dee xaj na ci waaye jaral na ma ko rek ndax dund bu naqari. Mhm. lii la ko tontu ne ko daal dara xewut dañoo sonn rek. ñëw di wut dara. fa xaaral wax la ñu ko xaadi àttekat bi ne ko lillaahi kim tànneel na yàlla daru ko sag joox. daru ci cosaan aw aw soow lay firi. waaye soo yéemee dara rek mhm. da koy wax léegi la la nga wax rek loolu lay daru yore maanaam kon fii mhm. daru maanaam kalimaatika la firi mhm. say baat sa kàddu gi neex na maanaam sa kàddu yi la fekk daru si cosaan soo firi waaye fii kalimaat la dafa wax ay baat ba pare nga yéem ko ne laay daruk maanaam yéem naa sa baat yi fa ma azama ana lu gën a neex nafa saati fii ka say taflitu gémmiñ maanaam li ngay génne sa gémmiñ gi ana lu ko gën a teey gën koo rafet waaxan kimtaan lakka ñeel na la wa waaxan kimtaan lakka ñeel na la loolu laa xidaam bu du toon wor fii ka bu nekk ci yow bu du toon wor kat nga de ku yéeme ngay doon waaye wor gi rek moo la yàq way nii naka man nag li meneen mun dirine maa ngi bokk ci way waar yi lakka ñeel man nag maa lay waar ومن ومن الحذرين ما بوكو شي وي مويتلو عليك تيو دين ما لي مويتلو فلا تماكر بول فخل بعدها غناكو الحاكمين اتكدي فخل اتكد ورد واتقي رجل سطوة المتحكمين سونغك ني اتل النخ التحكم ما الحكم بغير دليل كوي اتلو نيه رك التحكم ورني لي نيت hada taxakumun lii nga def ni taxakum la mhm. taxakum mooy mooy da ngaa xool loolu neex rek nga àtte ko waaye amoo si benn tegtal mhm. hmm? moytul nag song ñi nga xam ne loolu la ñuy àtte mhm. àttekat yi xam ne si ñoo xam ni neex la ñuy àtte kon moytul mere kooku fu mu kullu musaytirin nekkul képp kuy not yu xiilu di xàccal de nekkul ne képp ku am kàttan rek day jéggre xàcc mooy mu ba ba affaire mu jàll am na yoo xam ne seen doole ji dañ ciy fayeku mm-hmm. wala kull awaanin te nekkul bépp jamono mm-hmm. yusuma la déggal dégg alxiila wax de mm-hmm. doomu aadama du jamono ju nekk lay dégg wax de ndax ndax léeg-léeg day mer mën ngaa fexe la ab àttekat fekk xol ba tàng na ci yow bu defee mu indi la problème bu dul jeex ndax jamono boobu dafa mer mënul dégg sa wax yi fa ahadu mu dig ko cheikhu mag mi ala tibaay masurati masurati si topp ak diisoom mag mi ne ko waa li nga li nga diisoo man wax ma ko danaa ko topp mhm. wala itidaaw ak jaaju an talbiis suurat yi mhm. ci lëntal ak meloom mhm. moom nag talbiis da ko fiyee taxyir si changé meloom waaye talbiis dafay firi tamit taxliit lëntal ak jaxase lëntal gii mu nekkee mu ne ko dana ci génn wa mu dem an jeexat yi ci wàllu attekat ba su ko defee aboseri jógee ci attekat ba والخطر تورجا ور الخطر نك ما ور ويجنا بون يال ما هو معي ملقتي من جباتي سجبو بقول الجوي رقم نكي ور كلا لقو أتكر بحدار دو كتير بيدم دي وري وات آه. نيالا هو بيد قاروان الحارس ابن عمام حارس نينا فلم أرى جسم ما أعجب لغنا يمي منها تخيخو بي ci mbir yi fii tasaare fil asfaari si soppandiku waaye tukki yi mm-hmm. tukki yi mu tukki tukki jaar si barab yëpp mm. dajeeku ma ci lu gën a yéeme lii wala xaraatu jànguma mislaha lu mel ni moom mm-hmm. fii tasaani fil asfaari mm-hmm. ci taalifi téere yu mag ya bu njëkk bi asfaar jëmu safar la bu ñaari bi asfaar jëmu sifru la sifru bil kasr mooy alkitaabul kabir téere bu mag mu ne lu mel nii mosuma dajeeg moom samay tukki waaye mosuma jàng it lu mel nii ci taarifi téere yu mag yi in uriidu illal islaah mastata'tu tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh